mais léegi boo xoolee euh, suñu réew mii nga xam ne dafay am ay jafe-jafe yenn saa yi naka lañuy defee kuréel boo xam ne mais kuréel boobu pour ñu teg ko du doon président moom mooy désigner nit ya fay ne mm-hmm. mais ñi nekk ci langue politique bi ñoom ñooy toog ñoom ñëpp d'accord ci ni diw ak diw ak diw ak diw d'accord nañu ci seen maandute mm-hmm. ak ci seen dëggu ak ci seen jub ñooñu nañu nekk ci kuréel bi léegi kuréel boobu ci li muy liggéey mooy parti politique bu ne am na ci li ngay yëngatu dinañu koy xool ba xam lu mu doon parce que tamit yenn saay problème bi ci biir parti politique lay ne duñ ko wax yenn saay saay benn di nga gis parti politique boo xam ni ci biir démocratie dafay manqué ah oui yow da ngay nekk militant ci benn parti politique mais doo fa cotiser dara mais loolu ñuy doxal yooyu yëpp di ko parti xaalis moo koy doxal te yow sa dërëm mosu cee dugg ba pare nag nga bëgg a nekk waaw boo moytuwul ki nga xam ni mooy def lépp moom mooy jàpp ni parti bi moo ko moom te kooku bis bu yeggee ca pouvoir ba boo moytuwul noonu lay continuer di doxalee mm-hmm. donc parti dafa war a am à l'intérieur démocratie interne mënuñu d'accord ci parti ñu naan dafa am constante ak ay variable mm-hmm. te loolu dégg nañ ko fii Sénégal waaw donc kuréel googu dafay saytu lu mel noonu dafay fexe ba euh, euh, parti bi bu ñu waxee par exemple dafa am école du parti dafa naan école du parti bi bu fekkee ni fonctionné wul mais parti boobu mën nañ ko jox avertissement te avertissement yi bu tollee trois wala quatre parti bi mën nañ dem ba tas ko. Mhm. mais loolu loolu kese la donc école du parti dafa am njariñ ñoom doyen Albert xam nañu loolu am na ci jamono yoo xam ne ku militant bu la nee man militant tel parti la bu waxee soxlawul sax mu la koy bu waxee rek di nga xam ne kii parti bi la ko. parce que dañ doon am ay principe am ay idéaux am yoo xam ne dañ koy xam ñu jàng ko ba bu waxee waa ji bu waxee di nga ni kii maoïs la. Mhm. kii. Euh, marxiste la. Mhm. Euh, kii libéral la kii et cetera et cetera parce que parti bi moo doon doxee doon mu doon am école du parti defe naa jeunes yi bu njëkk amoon na xaw ma jeunesse démocratique. albury ah jeunesse euh, socialiste jeunesse. union voilà UJDA union de yooyu ay ay vraie école la woon donc kuréel googu day saytu loolu mais kuréel gi day saytu tamit. séminaire maanaam parti bi ñu ni ko ci année bi war nga def au moins deux wala trois séminaires. Mhm. yoo xam ni séminaire de formation la pour xale yi séminaire de formation pour jigéen ñi. loolu bu ko deful day am ay points yi ñu koy xëccal. élection parti bi ñu ni ko nag am na élection yoo xam ni <laughs> boo ci bokkul dañ lay xëccal point te yooyu point yooyu bu def lu fenn fi parti bi amatul droit exister c'est aussi simple que ça mm. loolu nag dafay nekk loo xam ne dafay féete ci ci pré prévention maanaam balaay xët-xët di am moom dina ko xam te taxawaay ba nga xam ne moom la war a taxaw ba yenn jafe yi mënul ñàkk wax naa ko sànq mais yenn jafe-jafe yi ñu xam nan lañ koy gérer de façon intelligente ba du hmm. yegg ci yenn hmm. niveau yi mais ñun nag problème loolu di xalaat lan lañu ñu mën a def ay pexe yoo xam ni loolu dootul amati suñu problème ay ay ay ay faits divers la ñuy gérer te del xool fii ba problème jàpp nañu combien de personnes euh, rey nañu diw papa yi kii jooy na papa yi kële et cetera c'est bon ñuy relater l'information mais après man sama problème mooy lan ban jàngat lañ ciy jël ba taxawaay lañ ci nar a taxaw ba lu mel nii dootul amati wala bu dee ñëw tamit dootuñu bett mm-hmm. mais boo dee xool lii du du guleet wax naa ko sànq ah 88 amoon na fi je pense si je ne m'abuse on interroge l'histoire 2000 2012 bi ñu dem mm-hmm. élection ñaata moor moom moo fi am wallaahi euh, ay manifestation ñoo place de l'indépendance di ville 62. 62 de cetera yàgg na fi. année blanche sax am na fi ndax politique. année blanche cest dire que en réalité dañuy dañuy xam nañ ni bu baax a baax a baax ni euh, ci monde espace politique bi day am souvent ay jafe-jafe. Hmm. te jafe-jafe yooyu ñëpp xam nañ ni bu élection jubsee wala bu ñu bu ñu paree ci ay élection dafay gën a metti dafay gën a tar. Hmm. mais man li Napoléon Bonaparte doon wax laa gëm man Napoléon Bonaparte nee na man xarekat laa guerrier laa bañuma ku ma parce que kuy xeex mën nañ laa daal. Mm-hmm. mais bañ naa ko ba bett. mais préparé oui bañ naa ko ba bett c'est-à-dire que. management sa bopp ba nga xam ni yenn yi bu tamit dina fekk fagaru nga préparé wu nga ba loolu xam naka nga koy gérer. mais dañu nekk surtout dans l'émotionnel ba nga ci a. kon c'est un problème culturel. c'est un problème noonu nga ko waxee moom mooy dëgg c'est un problème culturel.